Bakary maa ngi leen ñu ngi leen di fay bu baax a baax a baax. Euh, tey ñu yeewoo tiis boo xamante ni nii kenn xamoonoo ko kii bi nga ko yëgee nu mu la def. waaw euh, déjà ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax ku ñëw fii di nga di nga di nga di nga di nga xam ne euh, Papa Thione liggéey na ci àdduna bi. dimanche bu nekk jaar na fi waaye dimanche bi wute na ak dimanche fi daan jaar moniment moo moo moo moo moo daanu tey nekkoon nit koo xamante ne nit ku wàccee boppam nit ku ku ku ku ku ku bëggoon njaboot. Euh, donc nag wax bi du bëri lu dul dañu koy jaale àdduna bi di ko jaale tabaarakallaahu bépp géwél boo xamante ne yaa ngi fi di yaa ngi fi ñu ngi koy jaale yi tamit euh, jullit yëpp euh, di wax ne suñu frère Wally Ballago Seck yàlla na ko yàlla may xolu muñ ndax Papa liggéey na liggéey na waaye yàlla na ko yàlla yombalal yan wi nga xamante ne mu ngi ci boppam ngir mu mën a gunge njaboot gi ba ci kanam kanam Euh, est-ce que amoon ngeen ay relation parce que moom euh, woykat la woon waaye woykatu diine nga est-ce que jotoon ngeen am ay relation yow ak moom. waaw si xam nga ñun ci kër gi la ñu yaroo ñun balaa ñuy euh, balaa kenn duñu xam fii ci ëtt bi lan daan lan daan woyee bi may mujjee gisanteeg moom ci gàmmu gi paase la ma defal leen surprise ñëw pour pour pour pour wayal leen ci yonent bi. je suis fier de toi je suis fier de toi donc kàddu boubles la ñu wax ak donc euh, ñun dañu fi bokk njaboot lañ ci voilà tëbuñu nous rek fi mais dañu fi bokk ndax ajaratu ndey wuri ba suñu te mom yar Kiné tamit tamit sama yaay papa euh, papa Thion daan da ma encouragé ci donc euh, relation yooyu le am quoi.